mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki sëriñ Ablaye Faye borom xam-xam bu mag bi la ci waaye sociale muy kilifa goo xamante ni ay millions yu bëree bëree bëri la yëkkati di ko teralee jaami yàlla yi di dimbali jaami yàlla yi. Cees ak li ko wër bëri na ñoo xamante ni moom mii moo leen di jox dépasse di yëkkati alalam di ko teral ci jaami yàlla yi muy borom xam-xam yor turu yàlla woo xamante ni ci alal rek lay dox ci xaalis rek lay dox. ray yi bëri na danañ ci dugg andi ci ay leeral gis nañ korite gi kër yu bëree bëree bëree bari jox na leen ay ganaar yu bëree bëree bari ak ceeb ak euh, li nga xamante ne mooy pombiteer waaye dafa tabax kër ba mu rafet dugal ci fameem jël oto bu rafet jox ko waay juróomu góor loolu lépp danañ ci dugg andi ci ay leeral tey danañ waxtaanee xam-xam danañ waxtaanee njariñ mais laata loolu dañuy bàyyi Serigne Abdoulaye mu nuyoog askan wi ñu soog ko xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi cheikh bi ñoo lay ziare. asalaamaaleykum. dégg maa ngi lay ziar di la nuyu di baalu ak waa Sénégal yi di bàyyi di baalu ak kilifa diine kilifa aada yi di leen nuyu di leen jégalu géej naa génn nag loolu moo géej naa génn fan yëpp dama nekkoon si yitte yi liggéey ak yooyu moo tax ma géej génn. wante booy ma bettee comme nii nga bettee nii nga ñëw nga ñëw seesi ma loolu ma siy kontaan bu baax. parce que xam nga rek yenn saa yi da day baax. ngay ngay tëju nekk ci sa liggéey. waaw nekk sa liggéey nekk sa yitte. boo demee ba féex nag képp ku la mënoo seesi nga mu doog laa seesi. Mhm. Ah, sëñ Ablaye nga ne ma ah, turu yàlla dëgg bu ko sëriñ ñoree sëriñ bu mënee liggéey xam-xam dëgg surtout lu jëm ci alal. dafa war a feeñ ci jëmmam ji ba noppi mu soog a defal keneen li nga xamante ni moom mooy alal ah, gis nañ la ah, nga fan yee paase nga jël ci weeru koor gi ay dons yu bëree bëree bëree bëri def ay kees ak ndugg mu am solo jox ko nit ñi bi korite gi jubsee nga jël ay ganaar ak i ceeb ak i pombiteer joxe ko fan yi ñu gis la nga jël oto bu rafet jox ko sa juru góor tabax kër dugal ci sa ñenn ci say famille tey am na kàddu yoo xamante nii sa juru góor seede na ko ci yow.

du leen sonn ci ci dara jox ma caabi yëkkati caabi oto jox ma kontaan naa ci bu baax maa ngi leen di seedeel kenn ku ne yàlla may doom bu baax wala suuturaal wala teral kenn ku ne loolu ngay ñaan yàlla loolu laa doon ñaan yàlla bu paree mu nekk taale ba seex bu paree mu bëgg Serigne Babacar Sy maa bëgg Serigne Babacar Sy moo tax ma gën koo sax sof ndax bi mu ñëwee fii maamam jaar papam jaar rek foofu la jaar dafa ñëwee mu bëgg seexal xale bi Serigne Babacar Sy maa ngi koy bi vidéo bu doy la kàddu yi sa waajuru góor wax ci yow yaakaar naa tey képp koo xamante ni bëgg na waajuram rek boo ko seetaanee xolam tooy na. waa xam nga comme ni mu ko waxee. àdduna boo si nekkee ngay am teraanga. Hmm. yàlla di la ko jox. Hmm. nga yor ay secret yoo xam ne dangay ñaan ay nit ñi am. ku ñàkk ba ñëw si man mën nga am si kattun yàlla ku amul dara laa wax boo ñëwee si am ku am bugg yokk boo ñëwee ma yokkal la mhm. ku amul dara boo ñëwee ma dafa la nga am mhm. nga nekk milliardaire man yàlla dama dimbali mhm. li may yëkkati di ko maye si àll bi si sama waajur laa ko ñekkee ba pare parce que àdduna munoo wax da ngay yëkkee sa alal di ko maye sa àll bi te nga bàyyi sa ay waajur luy sama pàppa seet ak si man loolu am la. Mm-hmm. man maa yëkkati kër googu kër gi ëpp na deux cent et quelques millions man maa ko yëkkati jox ko ko. jëlaat oto jox ko ko. Mm-hmm. dama ko ñawal ba pare bett ko ko ay pétrole di tolloo cinq jasinière yoo xam ne ay garam bu la ma bett ko ko jox ko ko. jël caabi oto jox ko ko. jëlaal kër gi jox leen jox ko ko. parce que dama bëgg sëddal sama euh, ndi xol waajur parce que yàlla nee na boo seddalee sa xol waajur yàlla dalay teral boo leen teralee yàlla teral la boo leen fonkee yàlla fonk la kon waajur kenn amu moroomam waajur kenn amu moroomam parce comme lu waxee wa ana rabbuka ala taxbudu illa iyaahu wal bil waalidayni ihsaana loolu yàlla wax kon man dama fonk sama yaay fonk sama papa te insha allah rabbi fan yi dinaa dem duubaay encore te bu ma demee ay or yu bari dinaa def valise ba mu fees del del ay or te bu mu ñëw maire bi laa koy jox te dinaa la woo nga ñëw jël ko. allahu man maa la ko wax. ay or. ba mu fees ay or. loo xam ne du la fen loo xam ne lu toll cinquante et quelques millions loo xam ne man maa ko teg à côté pour dem duubaay jina loolu lépp maire bi ay or jox ko. sama yaay laa ko jox fekk jox naa li sama papa ba pare ak sama yaay jox naa li sama papa ak kii teral naa leen oto ak kër kooku moom it loolu laa koy teralee moom it. boo boole si ay kol boole si ay parfum ay cuuraay lépp loolu laa bëgg indi maire bi sama yaay. parce que seen ñaan mu ngi nangu. Hmm. sa ñaan liñ may ñaanal muy nangu loolu laay ëlbata di ko ñaanal si si ñi nga xam ni yàlla dangeen def am nu woon dara mënu woon dara ba yàlla day def ni nekk minti milliardaire ni am alal. kon ñaanal nga nit mu nekk milliardaire. ñaanal naa nit mu raw sax nekk minti milliardaire laa wax parce que koo xam ne day yëkkati ay 500 millions wala lu ëpp au milliard da la ko jox ba ni boole ko la mënee garaam ak wii si xam nga ni kooku ñaanal naa ko ba xolam sedd na te jox na ma lu nekk moo tax. loolu moo tax bu comme ni nga ko waxee julli gi 20 millions laa génne mooy mooy si pañe yooyu nga gis 20 millions yi jënd benn pañe bu ne 40 ca 1100. encore jóge foofu jënd ay ay ay soble ay ganaar ay diwlin. ak ay ay macaron ak leneen li bokk ay vermicelle ay ay ay yoo xam ne nit ñi dañ koy bëgg dañ koy bëgg ci julli gi. boole loolu lépp jox lox leen. te encore képp ku ñëw sax dama lay joxaal leneen loo ci tagaat. loolu lu waral ma def ko comme ni ma la ko waxee yàlla may na ma taayee dama hôpital joxe fa 10 millions. waaw ah, def gis nga yéen a ko wane woon. ñoo ko waneoon fii. léegi loolu 10 millions yi ma joxe hôpital ba ba kooku bind woon na ma nee ne yàlla def na 20 000 moo si des. moo ko dinaa ñëwaat foofu joxewaat waat. wallaahi docteur bi si boppam man du ma fen docteur si boppam moo ma wax joxe na ba des na vingt mille moo des si xaalis bi te incha allah rabbi bu ma amee jot dinaa dem joxe waat beneen dix millions ma war demaat beneen hôpital joxe waat. man du si xaar kenn. lu kuddul yàlla rek moo moo tax may def du keneen. encore mu jóge foofu lu yàggul dara nga ñëwaat jëlaat ay pañe kon lépp looy def lu baax rek yàlla da lay koy fulal. Mm-hmm. nga ñëwaat ma jëlaat ay ay paña joxewaat ko. jëlaat ay paña joxewaat ko yàlla joxaan ma leneen lu ëpp loolu. kon boo koy def lépp looy def rek yàlla dalay teral yàlla da jàppale. kon bu booy def rek defal lu baax boo ko defee yàlla moo lay dimbali. kon lii ma def noonu dëgg. nit doo def lu lu lu lu baax ba pare di am lu bon. loolu nag moo ëlwaat ma ci man bu ma ñëwee sama xol sedd ma gën a am teraanga sama papa ma ne bii yoon dinaa yëkkat nga jox ko wante si kaw ñi nga xam ne lay ñaan ni gis. dafa am ñoo xam ne du ñëpp laa ñaan ñi gis nag wante bariwul ñoo xam ne danga nga ñaan ñi gis wante bu la ko yàlla jagalee. xam nga ku nekk ak li la yàlla jagal man yàlla damaa jagleel koo xam ni yoru woon daal wala mu wut kayit wala mu wut alal wala mu wut leneen yàlla bu jaar la ak moom mu yomb. Mm-hmm. loolu nag yàlla la du man du keneen yàlla rek suñu borom moom parce que yàlla rek moo fi nekk dara nekk fi. Mm-hmm. yàlla kese moo fi nekk moom dong mooy maye te moom kese mooy nangul nit ki moom kese mooy xañ nit ki. Mm-hmm. lu am solo la te lu yéeme la mais si Ablaye euh, tey am na foo xamante ni bëgg naa nga dugg fa ak gars yi parce que xam naa ne am na lu yàlla def ci yow ndax cees ni mu compliqué cees ay ajoor ajoor ñoo fa dëkk mais ni ñu la wóoloo ni ñu la joxe bopp xam naa ne am na lu yàlla def ci yow. rayaate bi nekk ci dëkk bi wala ndaw nekk ci yoonam di dem jékki-jékki ñàkk bakkanam am nga ci solution solution mooy kaaraange gu wóor kaaraange gu dëgër ku ko bëgg ci yaramam. xam nga li ma la wax gis nga jamono toll nii. ñin pël yi de. man pël laa séeréer laa. ñin som suñ yi boo demee tey Sambar. ñu wax côté Kërëm Jale. mooy kër kër Kër boo demee côté yooyu. nga dugg la budd nga dem côté yooyu. nga xam ne foofu mënoo foo jàmm booy ak booy jàmm pël mënoo jàmm fa pël ba mu dugg. sàmma man maa laa wax loolu. sàmma mag yaay mus naa dem di jaay comme luuma luuma yi nii def. mu jaay ba wàññeeku ñu jaay ko. mu yoroon trois cent et quelque trois cent et quelque mille. ni bëggoon nangu. ni tollu quatre bandi ay agresseurs ñoo xam ne ku nekk yor paaka. allahu akbar ñi kii jàpp fi di jam di jam di jam paaka boobu dàmb kii jam boobu weñu tul dafa am tul am la kii di jam di jam di jam di jam di ku nekk lu nekk di def wam bu demee ba paaka yi yëpp suñu yoroon paaka yi yëpp dàmb waa gars yi danoo daw bàyyi foofu sama kooku mooy mooy sama mag yaay ñoo bokk ndey ak bàyyi tul yooyu dañ koy yor ñin dañ koy yor suñu maam ñoo dañ koy yor am na ñoo xam ne dañ koy yor tul yooyu. Mm-hmm. tul yooyu boo ko yoree amul kenn ku la mën a renn ba mu dagg. amul kenn ku la mën a renn ba mu dagg. xale bu jigéen bi mu ngi rey foofu. muy euh, ki ñu agressé si si ki ne gay moom ki ne gay moom si foofu. moo tax yéen service yëpp ku nekk li ma lay ñaan demal wuti tul. kin na kin na kin na euh, gay moom. Mm-hmm. fekkoon takkoon na téere bi wala mu naan ko waa ji mënu ko rendi bu xaasim dóoree du wallaahi azim xaasim bu jamee wala mu ren du dugg. mënu ko raye leneen xanaa mu posé na ko waaw mënu ko raye leneen lu luy weñ wala fetel wala paaka wala lii mënu ko ko def dara. ndeysaan. parce que paaka da ak gis paaka yu xam ne mu paaka lii paaka single am single nga ko am paaka yooyu yooyu sax bu la ko jame jame ma dàmb mënu dugg du dugg. yow da gis moom nee day gis waa ji ni muy def ni yokk lëkkat loxo yi di def nii rek wante benn paaka duggul. ko tullu am am am amoon na lu xewoon Louga jamono bi ni bii kook muy benn ko magasin boo xam ne dañ doon jaay ay portable. jaay ay téléphone ay yooyu. kooku bu mu demee ba dugg foofu dafa rey dafa téere gardien bi. boobu jour boobu war na ci biir koor la tome woon sax mu mu gaañu. ki nga xam ne mooy gardien église bi. Mhm. séeréer la wante dafa tul moom ko dóol na ko trois balles duggul. jour kooku di décédé woon trois balles la dóor séeréer bi duggul lu ko waral moom séeréer bi dafa am tul ñett ball lañ ko dóor ci ci côté bi yëpp duggul benn duggul. kon tul ku la wax amul am na xale góor yi Sénégal yi léegi état mënul la gérer lépp. yaay gérer sa bopp defal sa bopp loo xam ne ni ay tul yoo xam ne boo digg sa der boo dajee bann bu la jamee jamat la jamat duggul day daw. waaw ah, day daw parce que xam na ni li fi mu jëm nii xam na fii kii mënu si moom dara. te ñoom paaka paaka moo moo gën a danger loo gis sa àdduna ak jaasi. parce que paaka daf paaka dafa am dangar. Oh. buy jam di àgg si xol bi. kooku nag gis nga sa yaram boo ko defee tul billaahi wala amu benn waay bu la mën a jàmb mu dugg. muy jigéen ñeeg xale jigéen ñeeg mu ñu góor ku nekk na wuti tul mooy loolu dong may saafara mbir bi. ku wuti tul nag. ku la bëgg rendi mënu fexe ba rendi la parce que du dàgg ku la bëgg jàmm du dugg ku la fetel du dugg nañu toppaat xam-xam yi njëkk yi xam-xam lu am la nañ gëstuwaat xam-xam yi léegi benn xale bu góor wala benn jigéen wala képp ku yëngu ko xaalis kenn déglu kenn déglu sa yaram ñoom dañoo yaram noonu rek nit du bàyyi yaram yaramam dëgg ku yëngu si xaalis wala koo mënul nekk wala nga siiw waroo wala ngay génn guddi waroo bàyyi sa yaram sa yaram da nga ko war a def est-ce que xam nga ni sax boo amee tul da nga am fit. parce que xam nga ki bu doon dóore bal du dugg boo demee si moom mu jam la paak du dugg. wuy ma nit ñi bu nu def nañu gëstuwaat xam-xam yi fi bàyyi woon maam yi bàyyi. ba léegi mu ngi fi. gaaw leen nag balaa mag ñi di gënn àdduna ni fi xam-xam bi ku ko si yorul. bari du bari ñu ko yor parce que tul yooyu. parce man. suñu tul hmm. bu la ko defee ba pare dañ lay isee dañ lay jox nga isee dañ lay def ni paaka bi def nii nii du dugg dañ lay isee ba pare ba nga xam ne yow mii leer na am na tul nu wax la acca demal tul kenn du de déet la wax bul la defee la tul ba pare dañ lay jox nga isee nga jël paak ba ren dagg dagg sa yaram bu dagg bu dara daggul nga xam ne yow ma tur yi jàpp na nga doog la bàyyi. Hmm. loolu mooy xam-xam ñin Cees laa dëkk cët laa nekk wante sunu maam yi fu ñu nekk mooy mooy côté Lubbudu kër côté Kër Masar la. Kër dëkk àll ba. Kër Mor Sarr boori Mbay Xawaar. foofu àll ba noonu. ci néegi ñax ya foofu la ñuy dëkk. ndeysaan ah, ah, tey ñu bëree bëri tooñ nañ leen tëj leen ci kaso yi waaye am na ñu def tamit dugg ci kaso yi. Mhm. mais am na xeeti gàllaaj yoo xamante ni mag ñi daan nañ ko jëfandikoo. kaso moom kenn du la fa tëj wala sax ku ñu xasa tëj ñu bëgg koo génne si kaso. xam nga nii am na galaaj yoo xam ne sax boo ko tàkkee bu nga nekk kilifa ni bëgg la jëlee foofu yóbbu la tribunal tribunal day tàq. Ah. waaw am na galaaj yooyu. day tàq wala ki nga xam ni instant moo la fa yóbbu. moo la fa yóbbu. li dalee njabootam. Mhm. li dalee moomam ñun ñëpp kenn du si wér ñoom ñëpp ñoom ñëpp yàq am na galaaj yooyu. galaaj moo tax du ñëpp la ñuy yóbbu yoon. Mhm. am na ñoo xam ne boo leen yóbbee yoon yàlla xam na ni sa famille dootu kenn dooti ba day topp seen doom laa wax. bay parce que day dem ba essandi yi parce que moo tax galaaj yooyu yëpp boo gisee ma fi wax damay leeral. kilifa yóbbu yoon yooyu galaaj yooyu comme ni nga ko waxee. am na parce que man comme lu ma ko waxee dafa am ay jamono yoo xam ne dafa am benn. waaye boo xam ne dama doon jëflante ak moom waan lu mu waxee. day wax moom xaw ma ko woon moom bu njëkk ba. waa moom xaw ma moom Europe la nekk wala moom mosuma xam day jëflante ci lu weex li ñuy ñuy tere. mooy pundax bi bu ma waxee damay wax damay rawale ay meew. léegi meew boobu. Eh. dama bëgg jël meew bi yóbbu ko ay benn usine man sama patron bëgguma mu yëg ma ko. te bëgguma kenn gis parce que ku ma gis damay boole patron noonu la ma naxee ko waaw. waaw ma yëkk di ay galaaj yu baax jox ko. gis nga bu yàlla defee mu ngi ko joxee galaaj yi mooy ñi nga xam ne ñooy gardien euh, li nga sax frontière mooy police pour kenn. waa dafa jour boobu ñoom mosuñu nelaw jour ba dama fekk ñoom ñëpp di nelaw mu jàll. kon galaaj boobu am na. Mm-hmm. waaw à laa xam ne kon lii dama doon nax lii du lii du lii du meew. Mm-hmm. ama leen te kooku joxaan naa ko galaaj boo xam ne ni si kàttu nag kenn mënut a feex ba téye la police. alhamdulilah baax na. ku la téye police. parce que dafa am galaaj yoo xam ne day day day day mel ni day mel ni bomb. lool gis nga moo tax gis nga tey am nga fan laa xamee Sonko si benn côté dafa am lu mu àndal ma duma la fen pour que dem rek dem ak tay mos teg yàlla rek moom mu tiim damaa gënt man ak Sonko ñuy julli. mu sol jàllaabu jàllaabu bu xam ne bu bu bu lii la mu jàllaab yu kii yooyu di ibaad yu sol. di julli ma ànd moom dem mu ni mu ni ñëlee dan maa bëgg pexewu de xam ne man maa ëpp bopp. lii la wax man ak moom ni jullee ba pare comme julli ajjuma. ne ànd moom mooy mooy wax loolu. kon kooku am na lu na lu mu ànd mu ànd lu am lu nekk sa mun yàlla xam ne man du ma man du amoo lu may fen man loolu laa gënt ma xam ne kii am na lu lu mu àndal moo tax kooku ku nekk na na na mooy ku mu koo ku muntu doon ku yor dossier bi ku yor lii nañ def nañ def nañ tey si gar si si dossier bi mbiru Sonko bi nañ si bàyyi ndànk parce que am na loo xam ne man naa ko gént man du ma fen am na loo xam ne bu bari dama koy gént loo xam ne dama ko lii kon nañ si bàyyi xel. Mhm, wante li ma mën a xamal mooy gàllaaj lu am la ku ko weddi dalaa jàppul. parce que man mii nga gis nii damay jat ay bant ba mu taxaw. Ah. barke Seydina Muhammad te wala du ko wane. lan. billaahi wallaahi wa taalaahi damay damay jat ay bant ba mu taxaw. kon nag mën ngaa jël nit ba mu moo tax moo tax wax la dafa am lu bëri yoo xam ne duma ko du nangu di wax duma ko nangu di wone parce que am na foo xam ne gëm-gëm yàlla bu la fa tollee lu bëri yow doo ko wone dama la wax xam-xam dafa am si si yàlla da ko fi indi moo tax ma wax la. képp koo xam ne maa ngi jëflante ak yow bu ma la xoolee sa mbir xool la ba wax la xamal ni sa kattan bu yebee sa xel na daal xamal ne li ma la wax ala kul at di nga ko gis. Mm-hmm. te am na loo xam ne bu mu la seetal di la ko wax danga dinaa la wax loo xam ne mu yow kese bu nga ko def yow kese yaa ko def te bi nga wax Ablaye lan la def ba xam lii. kon loolu xam-xam la xam-xam mooy lu comme lu ñu ko waxee xam-xam euh, sori na soriwul. Mm-hmm. parce que mën nga dem nga ni Casamance wala beneen wala feneen nga yaakaar xam-xam foofu nag fekk xam-xam yi yow fi nga jugee fi nga jóge sax bàyyi nga fa xam-xam raw bi bi ngay wuti foofu kon xam-xam lu am la. Mhm. Sénégal euh, boo xoolee lu mel ne zone Saloum bi ak Bawol ak dégg naa zone bu saf sàpp la ak xam-xam. waaw comme lu la xam-xam yi bari na xam-xam yi bari na wante comme lu la waxee xam nga ku nekk ak lii la yàlla di jagle ku nekk ak li la yàlla di may. xam nga man comme ni ma man toog di wut xaalis chaque jour moo tax tey bu ma génne tey balaa maa génne te yàllaa xam. dama ne bu ma génnee génn mën na mois de. wala na ko ko. du chaque jour ma génn si écran. parce que aw ma jot bi. heure bu ma génnee rek lu am solo laay wax message bu ma jàllale la wante du message wut ki ne yaa ndax man am naa ay minti milliardaires yoo xam ne chaque jour mu teral ma. xam ba comprendre la waa comme la ay ponkol ñoo xam ne ay ponkol ñoom ne ba yàlla def na gis nga Makiyu Fay mii nit ku baax la. Maysa na ma Maysa moom mi nga xam ne moom moo nekkal. mus na ma wax ay mbiram yu baax kon Makiyu. ñoom moo wax la nit ku baax la gis naa ko. te Maysa moom mooy ñoom ñoo ñoo liggéey moom mooy compter xaalis bu bari di ko jox moom. mooy may sa ñaa xam naa leen bu baax may sa ñaa ñoom di jóge sama kër ba si ñoom ñëpp kilifa yooyu yëpp ba si may ga MG invité na ma këram si ñax maa ngi jaale imaam juuf mi nga xam ne yàlla def na mu gën fi fan yi man ak moom ñoo àndoon ba may ga may ga MC këram mu si évnu évnu si ñax ma defal nu teraanga yu rëy kon man xam naa ni milliardaires yi nekk fii ñëpp laa xam dëkk xaw ma ba xam comprendre loo comprendre loo ko. comprendre naa bu baax. am du ministre du milliardaire du ñëpp ku nekk milliardaire yi fi nekk ku nekk invité nga ma sama sa kër defal gis nga mbay nit ku baax la mbay mbay nga MG. parce que bu mu demee xaw ma li ma tegal xaw ma dafa rëy xaw ma copine la xaw ma lu mu doon. mënoo mënuma xam lii ban màcce la ak yeneen yeneen mu fekk fa jabaram bu baax. teral ma teral bu rëy. muy këram bu nekk si ñax. kon nit ku baax la. dama la wax kilifa yi milliardaire yëpp laa xam. kon man li may wax aw ma si nu may nëbb. Euh, dëgguma parce que man yàlla dama boole ku nekk ak fi ngay jaar ak man. Mhm. kon tey Makiyu Faye bu joxee au milliard yooyu. nit ku baax la. parce que may sa ñaa moom du jóge sama kër ñëw na sama kër sama xarit la. te ñoom ñaa ñooy liggéeyu ñoo. kon lu am solo la am solo la. Ah, sëñ Ablaye tey ah, gis nañ ne célébrité yi lu bëree bëree bëri ñu bëri dañ naan ah, wax jiwu leen siiw jiwu leen gis nañ ci benn sëy boo xamante ni mooy sëyu Pa Abdou Cissé ak ki nga xamante ni mooy Marie Louise Diaw bañ ko takkee ba léegi ñu ngi koy xewal réception bi rek boo xoolee démb la woon yenn Sénégalais yi ne est-ce que jotul tamit ñu nëbbu mbir yi wala. Euh, xam nga ni ku am sa alal. Hmm. mu lew la ma lu la neex mën nga ko see def. wala li am fëlloo sëy nga wax. sëy dagan na. nga jël sa teraanga teral sa jabar dagan na. yow léegi boo ko tir tirul kañ ngay teral. boo sa jabar kañ ngay teral am nga sa alal doy na la lew na la takk nga jabar. teral nga ko jigéen boo ko tirul kañ la nga teral xam nga alal bi gis nga kër yeeg oto yeeg. ah xaalis bi yëpp pour nit ñi la. Mhm. du pour bay ma yi. kon moom am na droit wante li ma koy digal mooy na wuti ay ñaan. Hmm. parce que cat baaxul. kuy wuti ah, ñoom ñaar yëpp nañ wuti ay ñaan parce que mën na dem ba si biir ñu jéem leen di dëddale. man xam naa li ma la wax. xam naa li ma la wax. Hmm. parce ku nekk. ci ñaar ñooñu. Mhm. ku nekk am na keneen koo xam ne bëggoon nga ko. Mhm. dëgg la. te ñooñu ñu ngi si def ay ñaan loolu nag message bu ma jàll lu ma xam ne lu ma gis la si Diop foofu moo tax ma amee mhm. dama la wax ñu ngi leen jéem a dëddale. ñu ngi leen def ay affaire parce que ñoom ku nekk amoon nga koo xam ne bëggoon diggu nga ko sëy wala waxoon nga ko sëy sottiwul. sut ku góor ki. su góor ki sut ku góor ki ku góor ki du moom kese la dig sëy. Ah, am na ñeneen ñoo xam ne dafa nekkoon ak ñoom. ñoo ñak ñoo jugaat si koom pour dëddale sëy bi. Mm-hmm. na wuti ay ñaan ñoom ku nekk na wuti ay mm-hmm. ma ko pour daara waxee ma ko parce que maa ngi sant yàlla bu baax du xaalis mu laay wut si kenn. man ku ñëwul ma may la. du yow du yow laay dem di la ñaan. xam ba xam comprendre fu ma ko parce man mi denc naa ay milliards. Mm-hmm. waaw daj naa ay milliards man man man man yor na ay milliards. du kër du leneen. ba si dëggoo ma dëggoo ma yàlla xam na ne ko. gëm naa la. man kay li nga def ci koor gi moo tax ma ne kii am na ci lu mu toog. 20 millions nga génne ko joxe ko. xanaa hôpital bi nag. yëkkati 10 millions jox ko hôpital. ak yeneen yeneen. tabaxaat kër joxe. ak yëkkati oto joxe. dëggoo ma am na kër yoo am na kër yoo xam ne. seen borom kañ la gëj euh, fay location. te dama te doona sama kër la. la fu foo xam ne suuf seer na fara man dem naa jënd ko teg. Ah, man naa teg parce que man comme li ma la ko damay préparer sama njaboot ëllëg balaa mu fiy jóge mm-hmm. nit ku nekk day préparer njabootam balaa mu jóge moo tax wax la li may wax li may xam la ak lu ma mën la. Mm-hmm. parce que àdduna si nekkee balaa ngaa jaay balaa ngaa laax jaay. jaay lekk ma lii alal boobu ci man la ko laa ko njëkkee ba pare. moo tax ma def ko ñaata doomu aadama ñoo may teral kër kër bu nekk jox nañ ma ko si. alal bu nekk jox nañ ma ko si. teraanga bu nekk jox nañ ma ba si xoolal xanaa du ñëpp laay lii rek xaaral ma walla lii lépp ay message lii lii lépp ay message lii la ay message euh, euh, lii la ñoo xam ne dama leen dimbali si ay ordonnance ak ay ay ordonnance ay dépense ak ay yëpp waaw mu ngi nii ah, mu ngi yëpp yii ay message la lii lépp damay leen dimbali lii lépp lii damay leen dimbali ku ma wax ma yónnee yaa ngi gis message yi mënu fi jeex lii lépp lii lépp ay message la lii lépp ay message la yaa ngi gis. Mm-hmm. lii lépp Wave bii la rek Orange Money bi ñëwul lii lépp yaa ngi gis. yaa ngi gis yaa lépp ay message la yaa ngi gis lii lépp ay message la. chaque jour dinaa def sama Wave lu toll la million cinq 500 wala 3 millions yoo xam ne dama ko joxe ba mu jeex takk. Oh. demal si Orange Money bi. yaa ngi dégg. demal si Orange Money bi. kon. man kon man xooluma. lu ñuul <laughs> lu ñuul la sax <laughs> non sax ñuul la ñuulul lii lépp ay message la Mamadou encore. lii lépp ay message la xaar affaire bi nii de mu ngi nii anamu sax waaw. lii lépp ay orange money la kon. Mm-hmm. waaw mu ngi nii lii la. kon. kon lu mu la ko waxee nan laa ko mën a waxee sax kon def ma pour yëpp ay orange mu ne la. te dégguma chaque jour dinaa ko joxe. kon li may def def ma ko pour dara. man nit boo may joxee preuve nga wax ma ah am naa fi ordonnance am naa fi nga yónnee ma ko ma gis ko ma yónnee la ko lii wante duma la dama gaaw fàtte nag si benn côté parce que am na koo xam ne waxoon naa ko dinaa ko duggalal wante numéro moom réer numéro appel dafa bëri ba numéro moom réer. kooku nag bu ma mën a waawaatee mu joxaat ma numéro bi bu ma bu ma paree émission fekk yónni na ma ko mu ni ma diw la ma yónni ma parce que numéro yi xamatuma kan la de waaw. waaw mhm. waaw fii laa a jàllale pour mu mun a xam ni moom laay waxal pour parce que yónni na ma euh, message yónni ma ordonnance mu ni ma bu ma paree mu dinaa ko wan dama ko wëraat wëraat. dem ba bu ko xaw kan la wante xam naa ko dina xam li ku may waxal. Mm-hmm. sëñ Ablaye lan ngay tàggatoo looy wax askan wi lay siiwul ci improté. li may tàggatoo mooy réew mi sunu réew la bu ko kenn yàq bu ñu kenn yàq sunu àdduna bi. Mm-hmm. sunu sunu li sunu Sénégal bi. Mm-hmm. parce que euh, euh, li fi dee bari na lool. li fi dee bari na lool ndax alal. xaalis mu nga ko am te doo rey nit. xaalis mu nga ko am te doo li yàlla xam na ni man pare naa képp koo xam ne bëgg nga am alal pare naa pour jàppale pour nga am alal ndax nga bàyyi bàyyi agressé bi bàyyi leen bi parce que agressé bi lu ko waral yëpp dëkk bi moo dëgër rek. do kese moo waral loolu. am na ñoo xam ne dañuy xiif wante dëkk dëkk bi yow ñoom it mu dégg dégg dégg yëpp yëpp dama wuti liggéey rek wala boo ko amul nga mu moo muñ wante nga bañ a faat ay bàkkan mhm. faat bakkan moom wax dëgg yàlla c'est pas normal. adduna bi léegi dafa jaxasoo. kenn bu kenn parce que xamatu kenn xamatu lan la war a def parce que ray bi moo bari léegi. kon na si yàlla musal si loolu te yàlla may nu jàmm te képp koo xam ne gis nga ma wala nga dégg ma yàlla na yàlla faj sa aajo. képp ku ma gis wala nga dégg ma rek yàlla na la yàlla faj sa aajo. yàlla nga gudd fan yàlla nga am teraanga àdduna ak teraanga laaxira adduna bi yëpp maa ngi lay ñaanal Sénégal yëpp maa ngi lay ba si seen Mountakha Mbacké mii maa ngi koy ñaan yàlla yàlla na yàlla gudd fanam. may ko ak wér gu bari may ko wér gu bari may ko mujj bu rafet macha allah loolu laa ñaanal parce que kilifa diine kilifa aada yi. ba si seen may may Mansour si. maa ngi ko ñaan yàlla na yàlla gudd fanam. may ko wërsëg bu yaatu may ko teraang bu bari ba si yéen yi nga xam ne yéen ma si yàlla na yàlla guddal seen fan. yàlla may leen wërsëg bu yaatu. yow mudu mumut yàlla ko yàlla guddal fanam tere bi gën a yaatu yàlla may la teraanga àdduna teraanga laaxe yàlla na yàlla def si jàmm si réew mi képp ku ñàkk yàlla na la yàlla may alal képp ku wéera di yàlla na la yàlla wér képp ku nekk si ay jafe-jafe yàlla na la yàlla dindi jafe-jafe yi képp ku nekk si prison te nga juum yàlla na yàlla génn waat te boo génn waat nga bala bañ a delluwaat si si lu mel ni luñ lay tere. Mm. yàlla na yàlla def si jàmm salaam yàlla yëpp yokk xéewal yi may nu jàmm may nu xewal wa salaam. ayco dégg ngeen waxtaan wu am solo wi nga xamante ni sëriñ Abdoulaye Faye waxtaan na ko euh, mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la ak ngëneel nekk waxtaan woo xamante ni lépp nooflaay la tënk ko ci li nga xamante ni moom mooy mbirum kaaraange ak rey yi ak célébrité ak na la nit ki di def ba am li nga xamante ni moom mooy àdduna mbokk yi numéro téléphone sëriñ bi mi ngi noonu affiché ci suufu écran bi képp ku ko ci woow rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp duñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah